wattukat ya nag fab xaalis ba def lañu leen santoon te nettali boobu siiw na ci yawut yi ba bésu tey noonu fukki taalibe ya ak benn dem ci biir galile ca tund wa leen yeesu digaloon bi ñu gisee yeesu ñu màggal ko waaye ñenn ñi am xel ñaar yéesu jege si ne leen sañ-sañ bépp jox nañu ma ko ci kaw ak ci suuf